الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أصحاب, أصحاب السماحة المشائخ أصحاب الفضيلة العلماء أصحاب الفضيلة آل الشيخ الخديم معالي الوزير الممثل لفخامة رئيس الجمهورية السيد أنطوان فليكس عبد الله جوم والوفد المرافق أصحاب السعادة أعضاء السلك الدبلوماسي أيها الإخوة الحاضرون من كل فج عميق أيها المريدون أيها الإخوة ممثل الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية وأعضاء المجلس المدني أيها المريدون وأيتها المريدات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشكركم جميعا على حضوركم المشرف في هذه المناسبة المباركة ووجودكم معنا اليوم يجسد روح الوحدة بين المسلمين على اختلاف الانتماءات المذهبية والمشارب الفكرية قال الشاعر ورثنا من الآباء حفظ ودادكم ونحن إذا متنا نورثه الأبناء ويقول أبو المحامد الشيخ أحمد الخديم المؤمنون إخوتي والمؤمنات لي أخوات وحياتي حسنات أيها الحفل الكريم إن تخليد ذكر الغيبة البحرية له دلالاته ورموزه ويقطر دروسا وعبرا ويعود بنا إلى تصفح أوراق حالكة في التاريخ الإنساني laqad waajaha cheikhu ahmadou bamba alquwata alisticmaariya min xilaali jihaadin silmiyin mabniyin ala alsabri aljamil walsalabati fi alaqida walsabaati ala almabda walmusaabarati ala alxaq wa tarbiyati almuridin ala alilmi alnaafic walaamali alsaalix waladabi almardiy fa qaabala alisaa'ata bilixsaan وعفى عن وعفى عن الظالمين يقول ظلمتم العبد الذي لا ينتقم لنفسه مجاهدا للمنتقم أخرجتموه من دياره بلا حق وجاهد وقاساه البلاء لوجه من عنه عفى عنكم عفا بعد بلاء وجهاد ضعفا أيها الحفل الكريم inna xayaata cheikh ahmad bamba kullaha wa aqwaalahu wa afaalahu wa axwaalahu tajsiidun xayun li isdaai shukri ila rabbihi azza wa jalla yaquul yashkuruhu kulli bi gayri dadani ila jinaanihi wa safa daydani laka shukuri rabbi min muharrami li xatmi zilxijjati xatmi lxurumi wa yaquul شغلت بالشكور عن تذكر ما قد جرى بيني وبين العسكري شغلني شكر إله قبل كليتي عن ذكر ماض من بلاه كليتي استغنت عن اشتكائي وكل ما يجر للبكاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu sant yàlla sunu borom julli ci sayyiduna muhammad alayhi salaatu wasalaam ñi ngi nuyu sëriñ bii toog mu sëriñ abul baraka ak njabootub cheikhul xadim ñoom ñi fi teewal saaxibul fadil cheikh mohamadul muntaqa di nuyu kilifa diine yépp genn kër desul di nuyu ñi nga xam dañoo jiite ay mboolooy lislaam liggéeyal diine di nuyu itam euh, ministre bi nga xam ne moo fi teewal ki jiite réew mi muy monsieur Antoine Abdoulaye joom ak mbooloo mi mu àndal di nuyu itam gan ñi nga xam ne ñooy koor diplomatique nekkal fi seeni réew ngir rattaxal seen diggante réew ak ak di nuyu tam parti politique yëpp bàyyiwuñu benn di nuyu itam jaamur yi nga xam ne dañoo tëdd njaaxaanaay bokkuñ ci benn parti di nuyu itam njabootoog mag ñi nga xam ne seeni maam ba dara dul dara seeni maam ñoo àndoon ak Cheikh Bamba te mosu ñoo tànk yi seeni maam jaaroon waaye tam nag di nuyu mboolem mbokk yi teew ci bis bi ak ñi amoon yéene teew te mënuñoo teew di leen sant di yëkkati kàddu yoo xam ne nag ci ndigalu sunu kilifa gi mu Cheikh Mouhamadul Bachir di sant mboolem ñi teew teew gi ngeen teew am na lu mu wane mooy day wane ne jullit ñépp benn lañu seeni ëtt mën naa wuute seeni naanukaay mën naa wuute waaye ñëpp benn lañu te lii du tey ci ay maam la won ak i baay wax naa ko léegi waris naa min al abai xifda widaadikum wa nahnu ida mitna nu warrisuhu am naa te Serigne Touba nee na yéen yéen ay ay mbokkam bokki pas-pas ñoo ay mbokkam al mu al muminuuna ixwati wal muminaat lii axawaatun wa yi xasanaat kon yéen ay mbokki pas-pasam ñëw ngeen ci bisam di ko santale yàlla kon sëriñ bi mi ngi leen di mi ngi mi ngi leen di sant mi ngi leen di gërëm bis bi ñuy fàttaliku nag ku xalaat xalaat ca ginnaaw da nga xam ne bis la woon yu metti bis la woon yu tiis ndax dafa am ay jàmbur yoo xam ne dañoo jóge ba bitim réew joox ci réew mi àndaale seen lépp nag seen culture seen civilisation seen xam-xam seeni gànnaay seen lépp ñëw not sunu réew bi ñuy not réew mi nag am na mag ñoo xam ne dañoo taxaw jàmmaarloo ak ñoom ndax mënuñoo nangu kenn ku leen moom ku dul yàlla mënuñoo tam wàcc yoon wi nga xam ne mooy yoonu yàlla Sëriñ Tuubaa nag jàmmarlu ak ñoom ñu koy teg ay coono mu di ko muñ kon ñoom ñi ñëw dañ fay fekk koo xam ne gaynde la ci fit gaynde la ci jom gaynde la ci ñeme mësta wàcc yoon fi yàlla bëgg mu jaar fa rek foofa lay jaar mu jàmmarloo ak ñoom muñ muñ ko rafet téye pas-pasam teg tànkam fa ko sangam ba tegoon alayhi salaatu wasalaam di yar ay taalibeem ci sàkku xam-xam ak jëfe xam-xam ak jaamu yàlla ak defar seeni jikko muy makaarimul axlaaq ñu tooñ ko tooñ koo xam ne ñépp ko mën a seere ne dañ koo tooñ waaye tooñ yiñ ko tooñ moom dafa jéggale dafa baale ndax nee na man mi ngeen jàpp génne ma samam réew tas samay kër tas samay daara tas sama mbooloo da ngeen maa tooñ wa zalamtum al abd alladi laa yantaqim li nafsihi mujahidan lil muttaqin axrajtumuhum min diyaarihi bila xaqin kon dañ koo tooñ waaye dafa jéggale yëmul ci jéggale dana taalibe yi na ngeen moytu di tooñ nangeen ngeen maytu di moytu di fayu kon taalibe sëñ ta tooñ sëñ ta fayu daal ne kuy tooñ du mucc kuy fayu tam du ñoŋ mbokk yi sëriñ Tuubaa nekkam gépp waxam yépp jëfam yépp mbiram yépp dañu doon sant yàlla yashkuruhu kulli la wax bi xayri dadani ilaa jinaanihi cant goo xam ne dara ci safaan du ca rax fukki weer ñaar yépp da ko doon sant yàlla laka shukuru rabbi min min muharrami li xatmi zil xijjati tam xarit ba tabaski da koy sant yàlla li tax nag mu jàmmarloo ak tubaab yi mënuñ ci moom dara mooy moom dafa wax ne yaakaarul kenn kudul yàlla ragalul kenn ku dul yàlla fa lastu arju wala axsha siwa maliki li annahu jàlla yuxniini wa yunjiini li may ragal yàllaa ko mën a fànq li ma bëgg yàllaa ko mën a faj kon du ma yaakaar kenn du ma ragal keneen dem na sax ba ne li ma war lépp def naa ko ba def naa loo xam ne sax mënoon naa ca bañ a àgg lahul tazamtu maa alaya yalzamu wa raadali luzuma maa laa yalzamu moo tax nee na yàlla mi ma jox sama lépp jox na ma loo xam ne as mbu mbu mbuur du ko am as mbuur ndax yàlla mooy buur bi ku dul yàlla as mbuur nga lillahi jalla yadi wal qalbu ma badani wa saaqali fawqa ma inda sulaytini moo tax sëñ Moussa Ka waxoon ne kënoog fetal ak karawaas ak jaasi du tee sëriñ Touba di way jinaas yi jinaas sëñ Touba nee na man sant laa tal waaye di fàttaliku li xew sama diggante tubaab yi taluma ko shughiltu bi shukuri an tazakkuri maa qad jara bayni wa bayna al askari wax na ne sax di fàttaliku loo xam ne day tooyal xol te bu xol yi tooyay bët yi tooy matu ko moo tax mu ne kon nañ sant yàlla ci bis bi saa bis bi ñëwee nag sëriñ bi yëkkati ay kàddoom woo ñëpp woo taalibe yi woo wëllëre yi woo bokkam yi woo dëkkandoo yi bitim réew dañuy ñëw ren li ñëw mat na téeméeri délégation te am na ñu wax ne li teew Tuubaa ci màggal gi jege na 6 millions defe naa ne ajug màkk sax matul 6 millions kon ñi nga xam ne ñoo teew muy délégation yi sama mbokk sama xarit sëriñ Abibu Mbay moo may moo may aw moo koy lim ndax sëriñ bi dafa xam ne xaw naa diis waaye danaa ci jukki rek alxadral malikiya waa kër maam alxaaji malik lu xew Tuuba kenn kenn kenn ci ñoom du des Sëriñ Babacar Mansour day yeble yabal na Sidi Ahmad si Cheikh Sidi Ahmad si ak Dabbaax moom suñuy waajur alxaaji Abdul Aziz si mu ànd ak mbooloo mu bari al usra al omariya euh, xalifa bu nekk Louga yebal na Cheikh Ahmad Tidiane Tall waaye itam Ceerno Madane yebal na Ceerno Omar Tall kon ñoom itam ànd nañoo ànd nañoo mbooloo waa Njaasaan xalifa ba yabal na cheikh abu mouhamad al kunti waa laayeen duñ fi gan si na isaa ngi ni jàkkarloo ak sëriñ bi canaba ak lew na ñeseen ak Medina Baye ñoom ca fan yële lañu ñëw dañoo teel a ñëw teel a gis sëriñ bi teel a ziyaara teel a wàññiku opposition bi tam sëriñ bi wax na ne